Assalamualaikum sama gars yi ma leen nuyu di leen ziare lii nag vidéo 30 secondes kese kese laa ko def muy lii montage la montage la montage la damay ñetti yoon lii jëru sax ngeen si coow bu leen tax ñu fàtte coowal teer bi na wax si loolu moo ëpp solo lii la ay eh, montage la boo weddee xoola ku ne mën na am Macky Sall ak même Mollah mii nga publier sax man Mollah man sensibiliser bi mu sax man moom nekk jaaxal xoolal Mollah moom mii mi ngi ne yaa ngi gis mi ne tik tek li lépp maanaam si kenn mënta ndax kenn kenn kenn kenn ak si rim toll